أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi ànd ak yéen ci kitaabu tawxiid tollu tey ci buntëb waxu yàlla subhaanahu wa taala bi mu wax a yushrikuuna maa laa yaxluqu shay'an wa hum yuxlaquun bunt bi ñuy jël tey dafa topp ci bi paase woon sunu borom subhaanahu wa taala ba tey toll ci leeralal jaam ñi di leen wax ne ndax dañuy bokkaaleeg dañuy boole yàlla ku bindul koo xam ne dañ koo bind su ñëwee ci min ahdaafi dars jubluwaay bi tax ñu war a jël darsu tey bii dinañ fa fekk ñetti tomb bi njëkk mooy an yastanbita al muslim min al hadis an najaata laa taxsulu illa bi tawxid wal amalu saalix mbokk jullit yi tomb tey danañ ci jëlee ci hadis bi ñu war a jël ne texe kenn mënu ko amee fenn lu dul ci kennal yàlla ak jëf-jëf ju baax kenn ci ñun su bëggee texe te texe mooy rëcc ci safara ëllëg dugg aljanna loolu mooy texe kenn ci ñun su bëggee loolu na yëg ne mënu koo amee fenn lu dul ci kennal yàlla wéetal ko ñaareel bi mooy jëf-jëf ju baax ñaareel bi mooy an yastadilla al muslim ala anna rasul ala anna rasula sallallahu alayhi wa sallam laa yugni an ahadin min allahi shay'an bokk na ci li ñuy jël ci tey ci dar sa tey bi dana leer ci ñun ñu xam ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mënul jëriñ kenn fa yàlla ku jaamul yàlla yonent bi ëllëg mënalu la dara ak kum mën a doon ñetteel mooy an yusabital muslim anna du'a annabi sallallahu alayhi wa sallam baada mawtihi shirkul akbar ne ñaan yonent bi ginnaaw ba mu faatoo ngay ñaan ci moom loolu ci bokkaale yi gën a mag la bokk kon ñett yi buñ ko boolee mooy jubluwaayu dars tey bu njëkk bi mooy ñu xam ne kenn munta rëcc ëllëg ci safara dugg aljanna lu dul ci kennal yàlla ñaareel bi mooy yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mënta jëriñ kenn ëllëg ku jaamul yàlla ñetteel mooy ñaan yonent bi ginnaaw bu mu faatoo bokkaale la su ñëwee ci dars bi danañ fekk abu hurayra di ñu nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala abu hurayra ne qaama annabi qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hiina unzila alayhi wa anzir ashirataka al aqrabin surat shora aya 214 keroog bi yàlla wàccee ci yonent bi aaya bi ne ko waaral waaral sa famille ñi la gën a jege asir mooy famille banu abi al adnu awil qabila mu ne nekk sa giir xeet bi nga bokk kër gi nga bokk famille bi nga bokk keroog bi aaya bi wàccee yàlla ne yonent bi waaral ñi la jege moom yonent bi dafa jóg ne bërit allahu akbar dafa xam responsabilité bi mu yem dafa xam kan moo ko sant mission bi kan moo ko ne waaral ñi la jege moom yonente bi bi mu ne bëreet lu mu njëkk a def fa qaala yaa maasara quraysh gis nga mu départ ci giir gi mu bokk mooy xeet bi mu bokk mooy waa quraysh aw kalimatan nahwaha wala moom yonente bi wax na leen baat bu mel noonu yéen waa quraysh istaru anfusakum la ugni ankum min allahi shay musal leen seen bopp xallasuha min azabillah fexe leen ba mucc ci mbugalum yàlla lan moo leen ci rëccal mooy bi tawxidillahi wa taatihi te mooy topp yàlla kennal ko wéetal ko moo leen di rëccal ishtaru anfusakum musal leen seen bopp laa ugni ankum min allahi shay'an munuma leen a musal ci yàlla munuma leen a musal ci yàlla mbokk yi yéen ci yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam ki gën ci xeet wi gën ci mbindeef yi moo gën lu yàlla bind ku mu mën a doon muhammad moo la gën sallallahu alayhi wa sallam moom su mënul musal nit ci kanamu yàlla ndax am na keneen ku ko mën bokk na ci li tardeel Sénégal tey ay nit yu ñu gëm ne ëllëg yowmal xiyaam ku jaamul yàlla mën nañ laa dugal aljanna loolu dafa bokk tey li tardeel Sénégal nga gis ay doomu aadama yu dul jaamu yàlla xalaatuñu sax diine xalaatuñu sax lislaam ñoom daal ci lu leen neex lan nekk soo waxee ak ñoom ñu ne la waaw ñun fi ñu bokk walla ki ñu jàpp kooku amul lu mënul ma ne dana doy ci ñun yonent bi lim ñuy wax su fekkee moom yonent bi moo mënul waaye walla waaye keneen waay waaye ma ne su fekkee yonent bi moo mënul keneen waxi noppi yonent yàlla muhammad yemul ci waa qurays mu ne yaa abbas ibnu abdul muttalib yow sama baay tax sama magu baay yow mi nga xam ne yaay sama magu baay sama baay faatu yow yaa fi nekk tey comme sama baay yaa abbas ibnu abdul muttalib abdallah ibnu abdul muttalib abbas ibnu abdul muttalib abdallah mooy baayu yonent bi abdul muttalib mooy baayam abbas ibnu abdul muttalib kon luñ bokk sori na lan la ko wax laa ugni anka min allahi shay'a soo jaamul yàlla la mënuma la dara mënaluma la dara laa ugni anki mënuma laa jëriñ tey li xel nangu mooy kenn ku nekk ci ñun boo yoroon alal wala nga yor benn teraanga wala nga yoroon oto nga gis sa magu papa da nga koy yóbbaale wala doo ko yóbbaale bu oto bi feesoon sax ngeen daje fu sori mu leer na ne boo ko fi bàyyee kii du am oto même te oto bi fees na nooy def est-ce que da nga ko fay bàyyi ah jana la jaral police jàpp la pour moom nga surcharge oto bi mais doo ko fi bàyyi wala wala allahu akbar xel nangu lool de ah nga dem bàyyi ko foofu nga ñëw xel nangu lool de ma ne même bu oto bi feesoon munoo wàcce ñi ci biir oto bi moom di nga ko surcharge indi ko ak nag lu mu la lu mu la ci mën a fekk. waaye xoolal kii yonent bi ne ko bàyyi ëllëg mënuluma la dara ci kanamu yàlla ndax yonent bi ci kii rek la yam xoolal ci kaw la tàmbalee de Quraysh la tàmbalee bàyyi xeet bi mu ñëw ci. bàyyi ji bàyyi na bàyyi ji mu ñëw ci yaa safiya amatu rasulillah yow bàjjan safiya bàjjanam ku bokk ak baayam mu ne ko laa ugni anki min allahi shay boo jaamul yàlla ëllëg mënaluma la dara mu bàyyi kooku xëy na dafa sori mu ñëw ci fatima kan mooy fatima doomam yonent bi daan toog ba ci yàgg mu seen fatima di jóg mu jóg taxaw mu ne kii daggit la ci man Fatima nekk na jànq waaye yonent du koy uuf ndax bëgg bi mu ko bëgg da ngay dégg sax ci ay naan Fatima benn pom la bu yonent bi lekkoon laylatul isra wal mi'raj pom boobu moo formé Fatima ñun dëggaluñ loolu de dama leen di wax rek Fatima man dëggaluma loolu yonent bi bëgg na ko bëgg boo xam ne da doon wax kii daggit la ci man ku ko bégloo bégloo ma ku ko merloo merloo ma yonent bi nekk na ci sukuraat ñépp toog mu woo Fatima Fatima ñëw mu dégg ko Fatima jooy mu xool ko mu jooy jooy métti mu woowaat ko dégg ko mu ree yonent bi génn àdduna ñu woo Fatima ne ko waaw sa papa bi muy waaj a faatu dee na la ñaari yoon bu njëkk bi nga jooy bu mujj bi nga ree mu ne bi ma jooy dafa ne ma dafay faatu ma xam ne kon dinaa wéet ndax man moom rek moo fi sama wéttal ma jooy ñu ne bi mu la dee nga ree mu ne dafa ne ma bu faatoo man maa koy njëkk a topp ma kontaan ma xam ne duma fi yàgg kon dama koy fekki ma kontaan kon lan la yonent bi wax Fatima yaa fatimatu bintu muhammadin salini mimma mimma li ma shiti laa ugni anki min allahi shay'a ey fatima sama doom laaj ma sama alal loo ci soxla ma jox la maa ngi lay yëgal de fatima man mi muhammad laa ugni anki min allahi shay ëllëg boo jaamu yàlla mënuma laa dugal aljanna léegi nag mbokk jullit yi nañu seet ñeenti ñii Quraysh xeet bi yonent bi bokk mënul leen dara Abbas baayu yonent bi yonent bi mënalu ko dara Safiya bàjjanam mënalu ko dara Fatima mi doomam mënalu ko dara kon keneen bu la nee man mënal laa la dara est-ce que war nga ko gëm waaye nag comme nit ñi jànguñu tawxiid comme Sénégal moom tawxiid amu fii léeg-léeg sax ñiy def conférence dañuy ragal def temu conférence bi tawxiid léeg-léeg sax conférencier yi nga jox leen temu tawxiid ñu ne la déedéet day indi xuloo day indi xeex day tax koj bi dañ may mere day tax paa jàkka ji mere ma day tax day tax nga gis ku nekk ndeysaan wala léeg-léeg ñu ne la waaw tawxiid la mais na nga xool rek noo koy defee daal ndax xam nga Sénégal moom vraiment ah di la wàññi quoi ma ni góom bu ñu ko yóbbee ci docteur ba pare ne góom docteur bi góom la waaye nag xam nga rek na nga ko kii rek góom bi du wér waaw góom bi dañuy bàyyi opération opération bu sedd amul fi mu nekk nii ñun ñi ku ci feebar wala sa mbokk feebar nga dem ñëwaat ne mu ne la dañ may opérer looy sentir yow da ngay tiit wala da ngay kontaan da ngay tiit lu tax ngay tiit parce que opération la loolu mooy tawxiid tawxiid opération la foog nga nangu ñu xotti sa xol bi xotti dënn bi xotti xol bi génn li ci nekk lépp te du yàlla ñu dugal ci yàlla kese te ñëwaat xol bi dugalaat ko ci dënn bi ñëwaat dënn bi nga doogoon nga doogoon normal mais foog nangu woo ñu xar sa dënn bi duñu yem ci xar dënn bi rek mais xar xol bi dañuy xar dënn bi génne xol bi xar xol bi génne li ci nekk moo tax yàlla naan bis yowmal qiyaam bis la boo xam ne alal du jëriñ doom du jëriñ yowma laa yanfau maalun wala banuun bis la boo xam ne alal ak doom du jëriñ ñu ne yàlla luy jëriñ mu ne illa man ata allaha bi qalbin salim lu dul ku ñëw ci yàlla fekk bi ngay ñëw sa xol bi tawxiid rek moo ci nekk kenn nekk ci ku dul yàlla léegi nag ñu nanguwunu loolu moo tax loo gis dañoo feebar ci jàkka yi ngay nekk dend ak ku tëkk loxo ndeyjoor baa ngi fees daal wala loxo càmmoñ bi tànk yaa ngi fees daal ndigi laa ngi fees daal ndeysaan dama dañ ma indil benn élève barki dem buy def sixième mi ngi am six ans mu ñëw ñu koy solal blouse bu bees ñu ñu yëkkati nii rek ma gis ndombo bi ci ndigg li ma ne ko lii lan la mu noppi ma ne ko lii lan la mu noppi lii lan la mu noppi bu caag mu ne ah sama yaay moo ma ko takkal ma ne ko boo demee nga laaj sa yaay lii lan la mu dem wàcc midi ne yaay ji lii ustaas nee na li nga ma takkal nii lii la la mu ne ko lu tax nga woon ko ko dee ko nëbb dee ci wàcce mbubb mi xale bi ñëw nee na sama yaay nee na naa la ko nëbb bu ma la ko wanaat naa ko nëbb bu ma ma ko nëbbee te nëbb nu ko yàlla ban njëriñ la am xoola xale bu ndaw boobu ñu koy tàmbalee bokkaale dès maintenant sept six ans mu muy tàmbale bokkaale mu takk loolu ñu gëmloo ko ne lii am na lu mu lay jëriñ fu mu jëm ak moom mu nar a màgg dem ak moom fu mu jëm su màggee ci pas-pas boobu dootul wóolu yàlla dootul wóolu yàlla ndax xelam dootul nekk ci yàlla mi ngi mel ne rek élève buy jàng ñu takkal ko benn gàllaaj ne ko examen bi lii moo la koy indil soo bëggee soo ko bëggee fekk ci classe yi mu toog nga bëgg a tekki loolu ndax dina ko nangu non wala chauffeur bi ñu jox dara ne ko takk ci baar bi doo accident nga bëgg koo dindi loo loolu gis nga nu mel loolu nag mooy tawxiid benn waay bu mag ci Sénégal parce que ci kilifa yi la bokk moo tax ma ne dafa mag dama nekk ak moom bureau mu ne ma ma jiite jumaa ba pare mu woo ma ci bureau bi mu ne ma li nga doon wax nii dama la koy dëggalal dama xëy bàyyi samay gàllaaj mu ne ma yëg ci sama oto ma daw ay mètre ma fàttaliku ne takkuma gàllaaj yi mu ne ma tourné oto bi ma ñëw gaare ko duggaat ci biir kër gi mu ne bi ma ñëwee ba jib gàllaaj yi ma ne man gëmuma yàlla man man war naa xoolaat sama bopp gëmuma yàlla mais ana yàlla mu ne noonu laa bàyyee gàllaaj yooyu daal di koy keroog takkuma ko ma dem xëy ma wàcc dara jotuma ma bàyyi waat ko fa ba moom juróom fan dara jotuma ma ne man ndeke gëmuma woon yàlla ma jël gas ba mu xóot suul gàllaaj yi nit bi mu nekkee ci biir yaayam lan la takkoon ah xoola fi mu jaar ba juddu dafa am lu mu takkoon dafa am lu mu naanoon dafa am lu mu sangoo woon ana yàlla mi ko doon aar foofu ku yàlla mun la aar gàllaaj yi munuñu la aar moo tax bokkaale garaaw takk yi ñuy takk ak yaakaar yi ñuy yaakaar ay doomu aadama dafa ne mën nan dañuy sonal suñu bopp tus la ñu munul tukulóor yi nee nañ so tawino allaadu ina nafa mu ma taa koy wóoree joomu béjjën bu doon jëriñ du jóge ci bopp kuy mi béjjën doon jëriñ du jóge ci bopp kuy bi bu ñëwee ci anasiru dars xusulu najaat bi tawxid ku bëgg a texe amal tawxid texe suñ ko dé soo ko déggee mooy bëgg a dugg aljanna ci ñun ku bëgg a dugg aljanna mbokk jullit yi amal tawxid del kennal yàlla kaana sallallahu alayhi wa sallam xarisan ala daawati nnaasi jamian imtisaalan li qawlihi subhanahu wa taala wa anzir wa anziri nnaas suratu yunus aya 2 mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ku xëroon la pour woo doomu aadama yépp lu tax moom yonent bi mu xër woo nit ñi ndax dégg ndigalu yàlla gi ko yàlla wax ne ci suratu yunus woowal nit ñi waar leen wa anziri naas waaral nit ñi benn jour dama déglu benn waay mu ne dañu war di waxtaan ak nit ñi ñu bàyyi waaraate bi ndax waaraate bi du jëriñ dara nañu wax ak nit ñi rek mu ne gars yi amuñu xam-xam quoi dañuy waaraate lan mooy différence waaraate ak waxtaan waaraate lan mooy jubluwaay bi du nga waar nit ki ba mu waaru mu gis yàlla waa léegi loolu bu ñu ko bàyyee di waxtaan ak nit ñi rek fu ñu jëm maanaam bàyyi leen li yàlla wax ngeen nax nit ñi quoi naxante leen mus naa fekke benn daayira boo xam ne guddi àjjuma la woon ma toog guddi àjjuma bi jeex benn waaye def waxtaan ba jeexal rek am ku laaj benn xale bu jigéen daal di laaj ki doon def waxtaan bi ne ko waa xeesal nag mu ne ko sëñ diw nee na bu ñu bu ñu buggee tere xale yu jigéen yi xeesal kon dañuy daw diine ji ma ne ko sëriñ diw moomul diine bi mu ne ah ma ne ko sëriñ diw mu ne ah ma ne ko moomul diine bi waaw ñu ne ma waaw waaw yow yow nag da nga xaw a tàng tuuti waaw waaw fii boo fii ñëw da ngay xam ne fii ay taalibe ñoo fi ma ni taalibe bu duñ wax dëgg yàlla bi mais est-ce que li ma ko wax du dëgg sëriñ bi moom moom moom diine bi bay bëgg a jël lu yàlla araamal di ko ci dugal pour neexal nit ñi loolu moo tax fi mu nekk nii mbooloo mbooloo diine yi ngay gis nii dañuy bàyyi nit ñi ñuy xeesal di meesu def bopp neen sol lu bon cakar-cakar yi déglu musique fecc ñu bàyyi leen ñu nekk ay taalibe parce que boo waaw parce que dañuy yaakaar ne bu ñu leen waxee dëgg gi ñu daw ne fii dafa métti man dañu bàyyi leen léegi ñuy xeesal sol col gu bon def bopp neen meesu nangam nangam léegi ba pare nekk taalibe loolu du lislaam dëgg gi yàllaa ko moom dëgg gi bu nu ragal ne dëgg la dëgg yàllaa ko moom nan ko wax ma ne yonent bi bi ko yàlla ne waaral nit ñi fa qaama bi waajibi daawa mu jóg taxaw def responsabilité woote mu bashiran wa naziran muy bégal di woote di waare wala ma nazala alayhi al amr bi mbir mi wàccee ci moom bi inzaar qarabatihi ne ko waaral ñi la jaga li annahum ahaqu nnaasa bi birrihi lan moo tax nit ñu koy wax su fekkee da nga am xam-xam mbay si sa weewu tànk alo fi nee nañ bala nga nee naam nafa bala ngay laax jaay laax lekk boo amee ñooy njëkk a may ñi la jege sa doom sa soxna sa yaay sa baay moo tax ñu ne la booy waaraate njëkke leen njëkke leen booy jàngale njëkke leen njëkkeel ñi nga am waxal ak ñoom dëgg nit warul nekk sondel di leeralal nit ñi di lakk boppam sondel noonu lay def sondel ah dafa lay leeralal mais est-ce que moom dina ko jëriñoo loo gën a gis rek sondel gën a lakk mbokk jullit yi yonent bi ko yàlla waxee lii ndax ñooñu li tax yàlla tàmbalee ci moom ci ñoom mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo war a am mbaaxam bu fekkee dafa baax ñooñ ñoo ci war a njëkk bu fekkee day maye ñooñ ñoo ciy njëkk bu dee day joxe ñooñ ñoo ciy njëkk moo tax yàlla ne ko njëkkeel ñooñu wa ihsaanihi ad diin wa dunya bu dee mbiru diine la kon ñooñu nañ ci njëkk bu dee mbiru àdduna na ci ñooñu njëkk kama qaala taala comme ni ko borom bi waxee ci aaya bi ñu jàngoon sànq wa anzir ashirataka al aqrabin waaral ñi la jege wa anzir avertiral al inzar mooy avertir mooy xupp wax nit ñi li xew ëllëg tey nag loolu la ñu bàyyi wax nit ñi ëllëg dëgg gi li xew pour nit ñi jaamu yàlla xoola xoola xoola démb li xew Dakar nit ñi fan lañ ko teg fan lañ ko teg yàq alalu jàmbur yi sàcc alal jàmbur yi ñoo xam ne defuñu wuxuñ ñu ngi seen bureau di liggéey waaj fekk seen oto yi ñu ma ñu sakaase ko loolu loolu loolu ban diine la ban diine moo santaane yàq sunu borom subhaanahu wa taala daf ñu tere sax yàq ci Qur'an lan la wax wala tufsidu fil ard bu leen yàq suuf yàlla ne innal mubazirin kaanu min ixwani shayatin yàqkat yi mbokk seytaane lañ yàlla moo wax loolu yàqkat yàlla nee na mbokk seytaane la kon yonent bi saa salaam bi aaya bi wàccee jamaa quraysh dafa dajale quraysh qaa'ilan ishtaru anfusakum yonent bi mu leen dajale ñoom ñépp ci benn place lan la leen wax musal leen seen bopp waaw musal leen seen bopp lu tax mu ne laa ugni ankum min allahi shay'an munuma leen a musal ci yàlla su ngeen jaamulee yàlla munuma leen musal kon musal leen seen bopp xallisuha min azabillahi bi tawxid wal amalu saalih rëccal leen seen bopp fexe leen ba am kennal yàlla fexe leen ba am tawxid fexe leen ba bu ngeen amee tawxid ngeen taxaw ci jëf-jëf ju baax mooy farata yeeg naafila yi li annahu samanu najaat la ictimaad ala al ixsaab wal ansaab fa innaha la tugni min allahi shay'an mbokk jullit yi maa bokk ak diw ba tax duma julli amul njëriñ diw mooy sama baay ba tax duma julli amul njëriñ nuux jabaram ak doomam ñi ngi safara te du ngoon ma ne nuux ku ndaw la wala ñu nekk Sénégal ñoo gën a baax nuux ah sëriñ ñi nekk Sénégal ñoo gën a baax nuux ah ñoo nuux ku gën a baax nuux nuux jabaram ak doomam muy safara Ibrahim xam ngeen Ibrahim Ibrahima xalilullah xaritu yàlla moo ngi nekk Sénégal ku gën a baax Ibrahim bàyyi ma nga safara kon nag mbokk yi bu fekkee ñooñu ñoo mënalul ñi leen jege dara masta mag keneen waaw nan leen ragal yàlla te jaamu yàlla xam ne mbir mi moom boolub laax bu ñu teg rek la boolub laax bu ñu teg boo dankee teg sa doq looy yëg tàngaay kañ ngay yëg ne laax bi saf na sukkar mooy boo dankee sax bu nit ñi di jaamu yàlla nga tëdd di nelaw te naan diw diw diw yowmal qiyaam yàlla tàqale la ak diw ku bëgg dugg àjjana jaamul yàlla fexeel nga am tawxiid fexeel nga gëm yàlla subhanahu wa taala nga génne lépp ci sa biir xol bul aj sa xol ci ku dul yàlla bul gëm lu dul yàlla bul jublu bul ñaan ku dul yàlla bu ko defee nga wér loolu olof yi di wax nga am connexion ah nga am connexion pour nga am réseau sa digganteeg sa borom mooy nga am tawxiid soo amul tawxiid amoo benn njëriñ nit kuy dox nii rek yaag rabu àll yi xar yi yéen a yem nit ku amul tawxiid moo rabu àll yu ñooyam ibrahim lu tax ne yàlla mu ne inna ibrahima kaana umma lan la dafa am tawxiid moo tax yàlla tànn ko inni jaa'ilu ko linnaasi imaaman man dinaa la def nga nekk imaamu nit ñi naas la yàlla wax naas lu tax parce que ibrahim dafa am tawxiid gis nga moo tax bi mu amee tawxiid yàlla ne ko reyal sa doom mu tëral ko di ko rendi parce que dafa am tawxiid nit ku amul tawxiid tey boo ko doon reyal sa doom na ko rey ah du ko rey parce que amul tawxiid waaye xoole ibrahim te tawxiid boobu ci la yar jabar ji moo tax bi mu nee jabar ji dañuy rey xale bi yàllaa ko wax mu ne ko bismillah moo tax doom ji bi mu amee tawxiid mu ne ko dañ laa war a rey mu ne ko yaa abatif almatumar sa tajiduni insha allahu min assabirin gis nga tawxiid ku am tawxiid lu ko yàlla sant mu def ko mu def ko mais ku amul tawxiid voilà loo gis ci réew mi parce que amuñu tawxiid mbokk yi mu ne leen musal leen seen bopp ku bëgg a dugg àjjana njëg bi mooy bul askanu ci diw mooy sama baay ba loolu amul njëriñ dañoo fekk Xusayn Xusayn wala Ali ibnu Xusayn Zeynul Abidin Fatima dafa am doom mu tuddee ko Xusa Xusayn Xusayn moom màgg am jabar am doom bu góor tuddee ko baayam Ali ñu fekk waa jooju ci keppaaru Kaaba gi mu julli ba jëbi ñuul kukk bakkan wi ñuul kukk oom yi nii ñuul kukk cati tànk yi ñuul kukk mel ne nefere nekk nag boobu xam ngeen nefere nag bu demee àll ba ñu bàyyi ko fa ba mu wow mën nga kaa yëkkateeg sa loxo gis nga ni mu mel noonu lañ gis jëbi mel noonu la bakkan bi mel noonu la oom yi mel noonu la cati tànk yi mel ndax bëri bu mu ko doon dëpp ci suuf ñu fekk ko foofu mu mel noonu ñu ne ko yooyaay kan mu ne man maay Ali ñu ne ko kuy sa baay mu ne Xusayn kuy yaayam mu ne Fatima kuy baayam mu ne Muhammad kooku ku ndaw la wala ku mag la ah ñu fekk ko muy jooy ñu ne ko waa léegi luy jooy nag mu ne dama doon jàng alquran ba yegg ci benn aaya wa iza nufixa fi suur fala ansaaba baynahum yawma izin wala yatasaaluun yàlla nee na bu ñu walee bufti bi ba ñëpp dekki kenn du laaj koo bokkal yowmal xiyaam kenn du laaj ana doomu diw ana ñoom diw ana waa kër diw loolu amul yowmal qiyaam mu ne loolu laay jooy te man bu ñu laajul man du kenn du xam kan laa bokkal te man Muhammad mooy sama maam comme yàlla nee na du ñu laaj yowmal qiyaam nag man loolu laay jooy waaw ñun nag waxuñu ma waxuma yonent de waxuma yonent waxuma sahaaba waxuma taabiin ñun benn waay rek benn waay ñu jàpp ne mën na dara benn waay amaana sax waajooju jàngul alquran waaw amaana waajooju sax du julli amaana waajooju sax xamul dara ci sunna ñu gëm ko topp ko waaw mu bàyyiloo ñu lépp nag mu gënal ñu sunuy ndey gënal ñu sunuy baay gënal ñu yàlla gënal ñu yonent bi gënal ñu lépp ndeysaan foofu lan toll ñun mbokk jullit yi ar rasul sallallahu alayhi wa sallam laa yugni an qarabatihi min allahi shay yonent yàlla muhammad ñi ko jege mënulu leen dara ëllëg yowmal qiyaama moo tax moom yonent bi mu woo leen mu woo baay taxam woo bàjjanam wa amarahum an yuxallisuu anfusahum min adabillahi bittawxid wal amalu saalih mu digal leen ne leen musal leen seen bopp ci safara ci mbugalum safara ci mbugalum yàlla fexe leen ngeen am tawxiid ngeen kennal yàlla fexe leen yàlla nekk ci seen xol yi fexe leen ngeen taxaw ci jëf ju baax te mooy farata ak sunna fa bi mujarradi qarabatihim minhu la tanfauhum wala tunjihim min adabillah bokk yi bokk bi yonent bi bokk ak ñooñu tey bu ñu toogoon nii rek ñu gis kenn ci ñi ne bërët suñu biir nu ñuy def dañuy jóg taxaw waaw jaajëf waay waaw waa kër yonent bi kenn na ñëw tey da ngay gis sax ñii di ñu nax nii am na ñu ñuy nax bu ñu jullee jumaa ba pare ñu ne dañ koy laajal addiya addiya maamam lay laaj gars yi daal di dajale jox la ñu dem lekk lan lañ bokk ak yonent bi tey boo doon wër sëtu sëñ Touba fooy dem Touba ngay dem boo doon wër sëtu Alaaji Malik fooy dem Tiwaawoon boo doon wër sëtu Ibrahima Niass fooy dem Kaolack boo leen war fët sëtu limaamulaay fooy dem yoof ngay wër sëtu Séné yonent bi di ñëw Sénégal xel nangu na loolu non est-ce que xel nangu na loolu laa wax lu tax dema Màkka wëri fët sëtu sëñ Touba lu tax dema Madina wëri sëtu sëñ Touba waaw waaw waaw waaw mais mais sët yi lu ñu daw daw daw daw daw xanaa am ñu des lu ñu toxu toxu toxu toxu toxu lu ñu toxu toxu toxu laa wax xanaa dina am ñu fa des ñëpp dañuy dem ñëpp ay dem ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp am ñu des kay xanaa mag mag tey jii Sénégal bu ñu doon toxu xanaa dina am ñu fi des ñëpp mënuñoo taxu di tamit dafa am loo xam ne xel moo ko nanguwul rek xel da koo nanguwul et puis et puis kan mooy bañ a nekk sëtu yonent bi yéen ñu toog fii mu la ne woon yow sëtu yonent bi nga wala sëtu firaaw na nga wala wax kan mooy nangu bokk ak ku bon et puis et fan la yonent bi waxee ne na samay sët di dem ci jàkka yi di laaj sama addiya et puis addiya boobu ñuy wax kan la ñuy wax addiya yonent bi nga joxe est-ce que ci yonent bi lañ koy yóbbu ah déet ci yonent bi lañ koy yóbbu yonent bi kay nekkatu fi addiya yonent bi léegi yonent bi lañ ko war a jox yonent bi nekkatu fi ñan nga lañ koy jox est-ce que loolu force la te am na dëkk yoo xam ne force la fal force da ngeen koy joxe fal force sërëf bi danaan du ma fi buuse lu dul dina mat fukki junni toog nga gis ñu dugg ci dëkk bi waaw yooyu ay caaxaan la rek mbokk yi loolu du dara dañuy nax rek bu yeboo ñu jaamu yàlla mbokk yi yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñii ngi nii bokk bi ñu bokk ak moom lan la leen wax daf leen woo ba ñëw mu leen li ma bokk ak yéen dëgg la de waaye bu ngeen jaamu yàlla ëllëg mën a lu ma leen dara sama alal nag terew ma leen ko sama dara terew ma leen ko waaye bu ngeen jaamul yàlla mënuma leen defal dara amal hidaaya wal fawzu bil janna wa najaat min an naar fala tatlubu illa min allah bu fekkee ne njub la ak dugg aljanna rëcc ci safara bu leen ko sàkk kudul yàlla fa ida kaana sallallahu alayhi wa sallam laa yanfau ammuhu wala ammatuhu wala ibnata fa gayruhum min baabil awla su fekkee yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo mënta jëriñ bàyyi taxam ci kanamu yàlla mënta jëriñ baayam bu ndaw bàjjanam ci kanamu yàlla mënta musal doomam Fatima ci kanamu yàlla kon keneen ku dul ñii foo jëm kon keneen ku dul Muhammad yaay kan waaye ma ne lu Muhammad mënul kenn mënu ko waaye bu ñu kenn nax lu Muhammad mënul kenn mënu ko billaahi wallaahi bi ñu génnee film Assane bi traduire ko dafa am ñu ku ma woo téléphone ne ma ngeen ne ngeen ne kenn mënta yóbbu kenn aljanna man ko déet waxewuñ ko noonu de nit mën na yóbbu nit aljanna mooy mu jàngal ko wan ko yoon wi nangam nangam wan ko tey jii nit mën na yóbbu nit Dakar nga réer dama bëgg dem Dakar waa ji ne la oto sàngam ngay jël nangam nangam sax mën na la may paas nga dem kooku moo la jàppale ma ne ko dañu ne ku jaamul yàlla kenn mënu koo dugal aljanna mooy da nga naan yow mënoo ko am na ku ko mën ma ne ko waa baax na ba ëllëg bu fekkee kooku mën na ko ma ne ku jaamul yàlla kenn mënu koo yóbbu aljanna ku jaamul yàlla kenn mënu ko yóbbu aljanna loolu ay caaxaan la rek ku la bëgg yóbbu aljanna ne la digal jaamu yàlla ne la digal nga génn nga nga wéetal yàlla nga am tawxiid ma ne lu yonent yàlla muhammad mënul ku la ne mën naa ko dalay nax waxu la dëgg yonent bi mënta yóbbu nit aljanna mënu ko moo tax mu sant ñi ñu jaamu yàlla waaw mbokk yi kon wa haazal xadis nee na xadis bi ñu jàng xujjatun lay la wu leer nañ dalil la ala anna man taallaqa binnabii sallallahu alayhi wa sallam wa daahu min dunillah laa yashfau lahu képp koo xam ne dangaa aj sa xol ci yonent bi di ko ñaan ak di ko jaamu yonent bi ëllëg yowmal xiyaam du la rammu aw yanfaw anhu lkurub wala nga yaakaar ne yonent bi mun na laa dàqal lor da ngay nax sa bopp fa iza huwa shirkul akbar nee na loolu mooy bokkaale bu mag buñ la teree ci yonent bi nga def ko kon keneen waxi noppi buñ la teree nga ñaan yonent bi buñ la teree nga aj sa xol ci yonent bi buñ la teree ngay bokkaale yonent bi kon keneen waxi noppi moo tax yàlla araamal ko wa amara nabi salaa sallam bi tahziri minhu bi ko yàlla araamalee dafa ne yonent bi fexeel nit ñi moytandiku loolu wa man arafa allah mu ne nañu fexe nit ñi xam yàlla nañu fexe nit ñi xam yàlla nañu fexe nit ñi xam kan mooy seen boroom nañu fexe nit ñi jaamu yàlla ñu moytu bokkaale ñu xam ne yàlla rek mooy dëgg lu dul yàlla caaxaan la lu dul yàlla neen la ku amul tawxiid boo dee da ngay dem safara yàlla subhanahu wa taala moo ko wax yonent bi jàngale loolu mbokk yi lii mooy darsu tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal nu tawfiq assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu